vol 5 xam nga bu ko jaree tamit dañu ngay def quoi tu vois. support communication bi lan la. Euh, support communication bi c'est internet tu vois waaw c'est free download quoi c'est sorti down c'est disponible sur ma chaîne YouTube euh, Mayno l'officiel c'est disponible aussi sur mon compte River Nation Mayno Menzo ou plutôt Mayno l'officiel tu vois. Euh, support kii bi de communication bi internet la Facebook Instagram parce que ñun même bu dul rap sax ñun foofu la ñuy nekk waa par exemple vie quotidienne xam nga à chaque fois dañuy connecté wu pour xam la moo xew ci àdduna bi à chaque fois on discute avec des potos à travers Facebook ak affaire noonu donc foofu lañ génnee sound bi quoi. mais Thiono Kandji bëri na ay talent. et que lan moo tax ngeen seen cartel boobu tas ça da ngeen a juboowul la moo tax cartel bi tas instant bi dañoo gisaan ampleur cartel mi ngi jugaat ci secteur yi parce que rap hip hop Diourbel dee woon na ba pare instant bi la commencé war a jug bi ñu commencé gars yi am ay cartel commencé teg ay concert collabo yi daw cartel boobu lan ngeen ci ak lan moo tax mu tas quoi. en fait euh, tu parlais de de Ruku Rap quoi wala. Oui, Ruku Rap waaw Ruku Rap dafa nekkoon Caxno Kanji mais ñi fa nekkoon nekkul ñëpp Caxno Kanji lañ dëkk quoi. te ñi nekkoon Ruku Rap même bu dul rap quoi je veux dire même bu dul ànd donc cartel bi tas wala ñaaka tas loolu c'est une autre chose en tout cas ku ci nekk dafa sentiroon dem ak sa euh, sa bopp en tout cas tamit découvrir expérience boobu noonu lan lan lan lay joxe quoi tu vois mais carte nekkul cartel bi dafa tas ñiy jaar gauche ñiy jaar droite non non non non. cartel bi mais cartel bi liggéeyatuñ kon tas na. waaw cartel bi ku ci nekk yaa ngi ci li nga nekk ah tu vois cartel bi pa ci ruku rab amoon na Gero Break tu vois Zeng Niga mi ngi ci mi ngi mi ngi ci yoon bi ba léegi Gero mi ngi ci.

ci la bokkoon te bokkoon naa ci bu baax au fait lépp lu ñu doon bëgg a def ñoo ko teg maanaam mun nañ ñu tuddee woon ni genre ruqu rab cartel la woon xam nga amoon nañ idée bi quoi pour def ko cartel mais avancé wuñ si woon de trop pour officialiser ko def ay cartel bi kii mooy coordonnateur bi kii mooy et tout et tout comme si que ba léegi nii comme li mu la ko waxee rek dañuy ànd ñun ñëpp en famille ba léegi sans rab ah sans rab dañuy ànd ñii dem xam nga def seen vie vie secret et autres léegi genre. ñu tegoon tegoon tegoon tegoon affaire bi comme que ñun ñëpp ñoo doon ànd ñuy ànd ñun ñëpp bu ñuy ñëw concert kii kii bu yéegee ñi support ko kii bu yéegee ñu support ko te ba léegi nii nii nii loolu mi ngi daw ah. naaj na naaj Thierno Ka ñoom gis ne am na rab et que a ngi def seen ay ay pas yéen a ngi marqué seen ay empreinte ci géemu Diourbel quoi surtout ci géemu Sénégal donc boo ma doon boo ma doon tasaareel sànni si mbaa première couple am quoi euh, salaam listen silence yoru zeng nigga the game yoru yoru millennium TK side we from yoru yoru millennium TK side we from that's the beginning ñu laxa saayu first track la yema nigga jugal jaayu joto baa ngi màbb bés ni ki today TK Avenue TK la jógee bismillah bring your woodland we gonna burn it fire all the bullshit vox people yi it's time gero bi move rabu danja ni mexicain te soxlawul bët frontière yi but my sponsor is a game bi rappeur yëpp lay fay aya naa ya zen nigga people bamtuwaat ko yemam silence MCs yëpp laay fay woon na fin du mois gérer du bounce with my young niggas na naaj na joxe mu ngi joxe donc sànni si mat gis nañ ne gis nañ gis nañ ne évolutif la boo xam ne bind nañ ko ak maturité. Euh, parce que ñun doon nañ doon nañ taxaw nañ nga presse ko ñu seeraan ko donc bind nga ko a maturité et que gars yu bari bu ñuy bindu ego trip a moo si ëpp wala wax ay mots yoo xam ne c'est déjà kenn du ko mën a comprendre yow nga bind ak maturité soo amoon boo xam ne mën na wax ak ñëpp quoi maturité boobu noonu fan la jógee Zeng bon pour wax la rek maanaam man hip hop am naa ci expérience ah am naa ci expérience parce que bon ñun dañoo nekk ay booy di déglu rap quoi xam nga dëkk ci koñ ba nga xam ni ñëpp rap la ñuy déglu comme li mu la wax Thierno Kandji nga gis ay booy nekk fa di rab di jéem a créer ay cartel xam nga di déglu ay album yu yu yu ya nga xam ni xam nga récemment génération bi gars yi déglootuñ ko man. instant bi ni mën naa wax ak ku nekk ci rap Sénégal au niveau Sénégal ku nekk mën naa wax ak yow ci rap selon selon ci li ngay yëngu ne la lii kat lii kat buñ ko defoon rab bi avancé wala war révo parce que yàgg naa ci depuis 2009 maa ngi si di xasal yaa ma gën a xam te nekkuma woon di seetaan quoi maa ngi doon rab maa ngi gëstu te ba léegi maa ngi gëstu par la suite son bi boo seetloo couplé yi sax waxuma la couplé mais kàllaama yi lu ci nekk mën naa nekk sound kàllaama yi instant dama dajale woon benn mode de vie ba nga xam ne moom laa doon jéem a dund xam nga di rap ego trip ñu ne zeng dafa metti ma jéem ko def classique xam nga parce que li may li may li may wane ba léegi wanee gu ma ko quoi instant bii nii benn paa rek laa teg quoi. ndax benn paa bi ñaareelu paa bu ñëwee dina tànga ah. li may ñu refrain bi sànni ci mat suñu xool. bon sànni ci mat refrain bi sama benn copain moo ko def famous ti ay kër la kese ah, amul nekkul nekkul ay couple wala ay verre yéen koy shout out famous ti wu sëb. maa ngi YouTube am maa ngi Rouvette Nation et tout maa ngi ci page yëpp ah sën mi nga sànni ci mat. c'est l'internet ah l'internet c'est l'internet qui parle ce moment que jeunes yëpp euh, ci internet mais bu ñëwee ci côté actualité. Mm-hmm. li am parrainage am na fi te yéen ay porte de voix ngeen. fii lan mooy seen position ci parrainage boobu noonu am quoi. waaw suñu position ci parrainage bi lenn la man dama yàggam benn concept quoi man boo seetloo membre Y'en a marre laa woon ba léegi moom laa mais. man moom laa woon ak moom laa. waaw woon comme ça veut dire que bi yaanaamaar di yaanaamaar bi 23 juin di nekk 23 juin. léegi yaanaamaar nekkatul yaanaamaar quoi. yaanaamaar mi ngi yaanaamaar ba tey mais ni mu doon doxee changé na instant boo xoolee yow di nga xam ni yaanaamaar ni mu doon doxee changé na parce que modernisation lañ nekk quoi parce que léegi nekkatul dañuy dem rek toog génn dem taxaw buntu pale xaañ xam nga mais léegi ñun dañuy trouver solution bi tu vois ay de voix dañuy ñëw bind ay sens yu engagé jéem a wax ni Macky Sall kat xam nga ñii nii lekkuñu mais man dama bëgg a ñëw xam nga ñëwee si beneen côté na ko Macky ñun de xaaratuñ la ci nga jox ñu ñu lekk mais ñun ñooy jug dem jéem a lekk comprendre nga man foofu laa foofu laa ñëwee quoi sama concept bopp xaaruñu parrainage boobu noonu pour mu jox ñu lekk xaaruñu parrainage boobu noonu pour mu xam nga feesal suñuy poos xaaral ma ñëw ci ci Meno Meno yow en tant que activiste en tant que rap nga gis parrainage bi fi indi d'abord la première chose mais njëkk a mooy la moo tax à chaque fois président bu toog élection di waa a ñëw il faut nga laal suñu constitution loolu moo tëng suñu dëkk quoi nañ ko nañ ko bind ci kàllaama boo xamante ne ni ñun moom lañ xam xam nga ñu jugee ci Occident bi ak ay ideem tënk ko mu nekk loo xamante ni day wëy en plus damay dégg ci parrainage bi une chose boo xamante ni pour man mënul nekk quoi xam nga même ci banque dañ lay wax fonds en écriture mooy xam nga lan mooy ma signé yow nga toppandoo ni ma signé nee nañ parrainage bi par exemple ku ci nekk da ngay am xaw ma plus de 65000 signatures te plus de cent mille signatures autant pour moi te ku ci nekk benn signature la am sinon dañuy annuler signature boobu noonu mais man mën naa signer kenn soxla ay ay signature jël sama carte fexe ba nu mu ko wutee si jël sama carte d'identité recopier sama tur ak sama lépp toppandoo sama signature léegi kan mooy vérifier loolu noonu. Mhm. ba pare vérification signature ça n'existe pas. même banque milieu banking dañ dañuy wax ne la vérifier signature mënul nekk quoi tu vois peut-être empreinte digitale wala je pas loolu mën na nekk quoi xam nga donc nañu bàyyi suñu constitution ngir yàlla quoi te en plus muy président muy opposition. ñoo xam ne ñoom dañ. dégg ngeen Zeng Niga Zeng Niga nee na xaaratuñ état pour lekk xaaratuñ état pour sangu même Meno Menzo loolu la wax. Meno last work bi xam nga di shout out Access Music et chez di shout out Mystic xam nga di shout di shout out di shout xam nga gars waa TK sama sama gars yi xam nga mooy loolu quoi il faut que life Meno Menzo Grenos. la from TK side xam di wax Sénégal di wax monde bi ne zen ku bëgg sound bi first single bi first track bi instant bi mi ngi def hit mi ngi def hit mi ngi bu baax a baax a baax na ko gars yi dem wëri YouTube boo def ñoo ci jàpp surtout sama réalisateur Cheikh le professeur sama caméraman Pambaay ak samay parents ñu ngi leen ñu leen di remercier aussi ci di remercier waa Pikine sama secteur sama koñ waa Thierno Kandji xam nga fa la ñaari MC yu jógee waa Sande Course di bëggee Jurbel yëpp xam nga di bëggee sama président Makumba di bëggee tamitam di jekkee Khalifa Dramé la Khalifa de DJ depuis Maroc di bëgg Mortala sama c'est mon ami mon jeune frère mon fils depuis Argentine di bëgg ñëpp ñoo xamante ne ni ñu ngi suivre émission bi ñëpp ñoo xamante ne ni tamit aussi ñu ngi ñu ngi bàyyi xel kàllaama hip hop ci seen site internet Baol Time TV